bokki jullit yi gannaaw ba nu sant yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa noo ngi bal xàq ñépp di balu xaq ñépp yàlla nu yàlla boole jéggal suñuy rëcc rëcc suñu diggante ak moom te dox suñu diggante ak suñuy moroomi jaam ba nux nux ak bañante gi am ci suñuy biir ba yàlla di wax ne nux nux yooyu ak bañante yooyu ak yam àndal yépp ci ay melokaan ajjana moom bala caa kenn dugg daf koy tàggaleek moom wane nazaana ma fi sudurihim min xillin ixwanan ala sururin mutaqabilin yal nañu ci yàlla boole te dimbaleen ñu boppam ba dindiluñu ko fii ci suñuy diggante ba bu ñuy dugg aljanna duñ am lenn lu ñuy dindi si ñun yal nañu ko yàlla defal tomb bi ñuy waxtaanee tey gannaaw ba ñu dénkee suñu bopp ñun ñëpp ñu bàyyi xel te jàpp xel suñu borom tabaraka wa la ragal ko te wattandiku ko te di ko bàyyi xel saa su nekk te di ko jàpp xel nañu koy defe nag mooy lépp loo xam ne nee na digle na ko moo xam dogu na ca wala doguwu ca ñu fexe caa mu jaral ñu wokk suñu loxoy mbubb ba na ko suñu borom santaane lépp ñu mën koo defee noona wala ñu def ci suñu kem kattan fañ ca mën a yam te bu ëllëgee ñu tàmbalee waat fa yal nañu ci yàlla jàppaleel boppam waaye li nga xam ne daf koy tere itam moo ci rawati bari na yu muy digle yoo xam ne du ca diggee dara waaye bari na li ëpp ci li muy tere yenn yi wax na la muy wàññ ci ko def li mu koy jural fii ci àdduna lenn li mu ne daf ko koy dencal ba ëllëg te bu ëllëgee du ko soxla moo tax ñu ne yàlla moo wax ci lam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne fu aw nit mën a nekk moo xam yàlla yónneegul na ci ñoom wala yónneegut ci ñoom waaye saa buñ gisee kuy jiitu ñu war a topp ci ginnaawam euh, kookee bu leen di jiite na teg tànkam fi nga xam ne foofu la yàlla nañ fa teg suñuy tànk ña topp sa gannaawam topp ca ndax kat loolu mooy indi jàmm fii ci àdduna te jàmmi àllaaxira it fii lañ koy wute ci àdduna kon wépp xeet woo xam ne dañu koy nettali fekke wuñ ko te dañoo tegoon seen tànk fa yàlla nañ fa teg seen tànk bu ñu bëggee dox dem ñooñu dawuñ jàmbat dara luñ mësaan bëgg yàlla daf leen koy defal waaye ñi nga xam ne su yàlla ne ñu ne saa su nekk seen loxo day dem gémmiñ te tibb du ko ci yóbbu yàlla nee na ci alxuraan li ciy misaal daa amoon dëkk boo xam ne euh, naatoon na naataange joo xam ne xel yépp daloon xel yu dal mi ngi tàmbalee ci bu ñuy bu ñu nee xay yàlla salaat xay yàlla falaat noddu nit mën a dem bàyyi bitigam ndax lan du xalaat dara foofa loolu xew fa woon xalaat li tax ñu war a tëj bitig amu fa woon ndax ñépp seen xel daloon naataa nga ja mate woon na ko kenn dawul ub sa bunt bu tàngee waxuma la tëj buntu kër ak caabi def giri tëjaat ko ak bunt bu verre wutaat caméra de surveillance si biti xamuñ woon lool buntu daawuñ ko wutal auber daawuñ ko wutal ab serrure bu dee buntu kër bi dañuy def yaari jën rek gàll ca bant képp waaye nee na bañ demee ba jàpp ne loolu seen ngóore la fi ñu koy waxtaanee ñu ne ñun day ñun nangam ak nangam dañuy ay jàmbaar dañuy teel xëy di guddee wàcc moo tax ñu am nangam. seetatuñ ci suñu borom yàlla nee na dama leen a nattal kenn ku ne ci ñoom ni téyéeri di natte nan la soxla mbir mi ba xam jot na lam déet yàlla daf leen yónnee mbubbum xiif ak tiit ak jàq ak ragal ndax lan li ñu xëy xëy wan gannaaw suñu boroom rek bàyyi ay ndigalam wuti ay tereem yàlla nañu ci yàlla musal buñ demee ci alquranul karim danañ ca fekk ne yàlla moom ca lañu ñu jiitu woon la jiitu woon sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla daw jéggal kenn ci mooy yàlla daw jéggal am na si ñoo xam ne yàlla nee na ci alquran ñenn ñu nekk dama leen a fay dama leen a delloo seen weccet rek ku joxe CFA CFA lañ koy delloo bu dee xaalis yu noonu dawaan yi rek jox indi leen pass ba joxe 1000 francs duñ la delloo dollar cinq fois lañ lay delloo bu dee fi nga xam ne dañu fay laaj dalasi wala nayra boo joxee nayra ci paas nayra lañ lay delloo moo tax yàlla ne kenn ku nekk dama ko delloo lam ma joxoon rek weccatam laa ko delloo am na ci ñoo xam ne daf leen a yónnee ngelaw lu tàng jër loo xam ne kenn mënu koo noyyi ndax tàng te bu tàngee ci bitti ñaare nit ñi daanay tàmm dugg ci néeg waaye fu mu dugg day gën a tàng seen température di yaram di gën a yéeg naan ndox du ko faj bañ bañ faatu yal nañu ci Yàlla am na ñoo xam ne yàlla daa yabal ci ñoom malaaka mu dar ay noppam rek yuuxu tiitaay nga jooju mooy yéegal seen tension ba ñëpp am crise cardiaque ñu faatoondoo am na si ñoo xam ne dafa ne suuf neel nga yeet mu ne ngayaat mu dugal leen ci biir ubaat du dara ci suñu borom mas naa wax sawara kuuni bardan wa salaaman kuuni bardan muy bëgg a rey Seydina Ibrahim mu ne ko wa salaaman waroom xam-xam yi nee nañ ba mu ne yaa naaru kuuni bardan yaa naar sawara yëpp dañoo gëstoo doon message bi nii rajo policier yi def xur-xur jooju muy def ñëpp ko yëgandoo ba ba ngay xam ne yow diw yow la ñuy wax. ñépp wuyu mu ne ku ñuy bardan bard nit mënu ko dund day taxawal dara sayidna ibrahima di bëgg a wàcc ab liggéey mu ne ko wasalaaman mu nekk bardu bardu salaam mu ne ala ibrahim kenn ku nekk xool boo gis ibrahima dellu ca lam la waxoon taxoo ñuy wax tabaraka wa taala gannaaw sawara miñ xam ñun ci la ko yàlla gën a mane del seddal guy mu sedd bay bëgg a rey ab sedd di bëgg a reyaate waxuma suuf si nga xam ne moom bis bu sa nit gas ci gas na mu ko bëgg suulaat yàlla ko ko daq nee na am na ci ñoo xam ne daf leen a labal am ci ndox benn muy ku mel ne Firawna wala ña daje woon ak Seydina Nuuhin alayhi salaam fu yàlla ne bat boobu dama koy jëfandikoo daa bari ndax nee nañ mas naa tukkal ab dëkk mu ñu ne moo tax sidina abdullah ibn abbas ci xej yonent la bokkoon sallallahu alayhi na jëfe ndigali suñu borom moo tudd xasana maanaam li yàlla di fay mooy xasana li yàlla di fay jaar coow ci ndigalam soo gisee ko ca jaar dëgg dëgg dëgg jëmm soo ko gisee di ko séen ni képp dana am sa naw gi day dagg ndax sa naw sa naw gi day dog ndax yàlla day def ci moom leer goo xam ne ku ko seen bëgg ko waaye daf koy defal leeru leeru goo xam ne itam lu waay am yéene na la ko waaye daf koy ubbil buntu wërsëg bi lu mu def rek am lu ne gàññ te te daf koy lekk muy rees waaye daf koy jox wér waaye day def ci xoli nit ñi ñu bëgg ko fu ko waay tuddee ñu koy def jëlal ko paam waaye nee na waxuma la kiy def yu dul noona waaye suñ koy def mu mën ne déedéet te noppi ca ñuy wax muy ñaanal ña koy def ak di leen taqdis daraja bu nekk mu ràng leen ko nee na kooku yàlla day xëy xëy rek yawalal ko ku ko séenati ne waajaa nga ne de ma nga ne ñu ko joxal léeg-léeg mu dégg ko léeg du ko dégg waaye leeru xar kanam googu ñu waxoon daal dutu ko am ca loola lëndëm lëndëm boobu bu tàmbalee du koy topp ba ci bàmmeelam ndax day jaar ci xol bi mu tàmbalee ñaane nit ñi suñ ko nee sa waaja day boo ko gisee da ko yërëm mu ne yaakaaroon naa ko de parce que du ma bett moom waaye foo ko fekk mi ngi ko mbuus naan ay garab ndax day wérante ñàkk jaar ci ndigalu suñu borom saa buy lekk naan doom yu dul jeex buy lekk ba ci digg mu naan doom yi jeex bu lekkee ba noppi naan doom yi dul jeex luñ ko indil mu ne yii li dafa sedd du ma naan lu sedd du naan lu sedd bu safee suukar mu ne yii lekk la saf suukar bu dul saf leneen mu ne du yii nangam ak te moo ne yooyu mooy moytandiku moo ko ne moytul nangam nit képp mu gëm ko gëm ko nag ba ne suukar mu ne yii yàlla tere xanaa man nga dogal ma ci rek waaye dañ ma ko terewal tey yàlla lay tere nangu see bàyyi dara nangu kenn defal ko ci waaye nee na loolu day xañe wërsëg ndax bokk na ci wërsëg buy dem te doo te nit ki du ko jariñoo lu mu am defe ko bilan ci yaramam jënd koy ordonnance jënd koy analyse loolu dara gënu ko nekk ñàkk wërsëg ndax luy dem te du dellusiwaat lay ñëw lu mu bari bari lu gannaaw lu dem du dellusiwaat ma ngay wàññi waaye bu yàggee tuuti nit ñi dañ koy bañ sax far ñim dëkkal ñoo ko gën a bañ ñoo naan yàlla na dee ndax ñu noppalu ci tawat ji loolu nag waroon xam-xam yi moo tax ñu wax ne ak mooy ak i bàkkaar te ay mooy ak i bàkkaar mën naa bañ a doon yu mag yi ñuy joxañ rek waaye saa buñ bëggee àtte loo xam ne yàlla nee na woon déedéet buñ ko àttee noonu ñu ne ah kay yàlla di sa juumoon jamono ji weesu na loolu gaz lay doon mooy loo xam ne ci oto nettali kenn gaz oto bokk na ci kërëwe yu bari yi fu mu jëm rek pneu yi lu mu gas gas saa tukki bu ko ñor rek di kërëwe ba ba muy àgg waxtu wañu ko doon xaar du ko àgg wala radiateur buy tàng saa boo ko defaree mu sa mu tàngaat ñu naan classe bi laaj te bu koy defee oto bépp lay yóbbaale benn benn ci oto bu du def bu ñu peeree dara ci oto fa mu taxawoon lay taxaw su classe bi tàng fa mu taxawoon lay taxaw su classe bi doxut fa mu taxawoon lay taxaw waroon xam-xam yi nag ne bakkaar yi ñenn ñuy def ci seen jëmm yaram yi wala ñu am baat di àtte di di ko àttee noona wala tëral ay yoon yu ñu àttee noona du yem ci ñoom donc yàlla ngi leen di xaar waaye da koy wàll nit ñi natt nañ ko ba tàyyi ci ku suuf faju sidna Moussa daan def laaj suñu borom lu tax soo meree rek ñëpp ngay maasal jar nañ ci bataay waaye ba mu ko def ba mu ko nee lekkal te diwoo ko ba mu ko lekkee te diwoo ko eh, yii di samaate sam ko ay melentaan ak sanq lay wenn jaawale lan doon lekk yaramu Sayyidina Moussa matt ko ak yéene ne ko kii mu tiiti ci nelaw dóor loxoom yu bari faam yàlla ne ko wàññil muy wàññi ba ne ko mënut mënuma leen a wàññi maanaam li war a naan ku lim da ngay juum déedéet kuy lim da ngay mën nga yeex a moo tax ñu tàyyee lim ne ko ñaata la matt mu ne wenn daal laa yëg ne matt na ma mu ko noonu la merom sama mer daal xaw moo tax mbir la moom ñuy waxtaan yépp te am baat tàmbalee ci kër ya tàmbale ci koñ ya tàmbale ci daayira yi yépp war nañoo yëg li may bëgg a wax ni am na jàngoro ji ñuy wax Ebola nee nañ kum dal day wàcc dara rek di bore am na fu ma ko set sax ñu ne nopp yi ci boo xam ne fu bën bën na ci nit ki day génne dara loolu mënut a yàgg tuur ndox mu bari sax mënut yàgg waxuma la deret nag far ji nga xam ne ci la nit di dund mooy dina mooy dox ci yaram ni kii dund ñu ne li koy joxe mooy la ci gën a ràññee ko rek mooy lekk mooy mooy mooy mooy yàlla mooy yàlla gi mooy lekk yàpp yi nga xam yàlla dana woon bu ko kenn lekk nee nañ ci lañ ko tàmbalee seetloo te li tax ma ne woon ca njëlbéen ga yàlla léeg-léeg mu diggee ne bu leen def nangam daal di wax la muy wàññi loolu mooy tànn ndax ab àtte saa bu ñu nee ku solut lu weex bu mu la fi romb ka lu weex doo si ko xool ku ku ko dégg dem solut lu weex génn nga ci àtte bi ñuy tere sàngara te dañ caa xeexoon am na saxaabi bu mag boo xam ne kanam lañ ko tojoon euh, mën naa ko tudd Saadu bnu Abi Waqaas yàlla daal di wàcc aaya bi ne sàngara ak yi muy àndal yépp al maysar al ansaab loterie ci la bokk ak pays joué pays ak soo wootee ci numéro nangam mën nga gañe nangam loolu lépp day yóbbu xelam nit xamra mooy lu yóbbu xelam nit rek ba du tal leneen lu dul lim nekk nii lim jublu yàlla ne yooyu yépp moo dox ba joggi sobe war a julli ñoo yàlla moytu leen ko bàyyi leen ko yonent bi ne ndax fexeel yàlla ne fexeel mun tawut ñu ne ah kay ah kay ko bàyyi léegi mu ne sàngara li muy jural nit bokk na ci mën naa tax ñu jotewutoon dara kenn ku nekk wax a wax ba tàng génn pàkk te su boobaa fàtte nañ tudd yàlla fàtte nañ julli fàtte nañu baax nga yàmbaag dorogam lépp ci la ba ko yàlla di tere foofu la jaar daal dina wax daal di il laal na dañuy wàññi waaye dañu doon bu leen lekk mbaam xuux nee nañ mbaam xuux da koy joxe te mbaam xuux ñi yore active réew mi maye nañ ñu di ko rey ci mi di ko jaay vétérinaire di ko seet mii seet nag xar di ko seetaale naan baax na te mën naa gën a moom ne yàpp bii de baax na mënees na koo lekk xamul mbampoo la xamul fas la xamut waaye bu dee bu dee li ñuy war a rendi la bu jaaree fañ ko war a rendee rek bu ci tegee tamponé am na daganal la ko nañ lekk waaye lii mel nekk ci àll bi di yéeg golo dañ ko tere woon xam mooy boole nañ ko ci ñuy tere boole ko ci bokk na ca ñu bari ñu muy tëkk ñu muy tëkku ba mu leen di mbugal daf ne am na si ñoo xam daf ne dama leen a mujj soppi ñu ngi yëg ci àll daf leen a mujj soppi yu yu bare bare la kunu fa qulna lahum kunu xiradatan xaasi xaasiin ñu ne golo dañ duñ ko lekk ñu ne aak ñu ne muus yi dëkk ñun sax bu dul bare sax dëkkaloo ñu ne fii am na ku jóge woon ci réew Afrique yi ñëw si ak kër fii ci dëkk bi gis muus yi bari lool mu ne ah aujourd'hui ça va chauffer ci lan mu ne damaa xam ne yii ma gis nii loolu dong laa doon ñëw ah déedéet nag fii moom kenn du ko fi lekk dëkk boo xam ne kenn du sànni medd medd soo ko gis dañ koy for lekk lu ñu njëkk a dee rek defe nañ ne war nañ ko lekk tàmm nañoo gis li muy wàññi te lawatan bu wow la guy guy lakk yëngutul si ne ko doon def kese. waaye day dem a dem bay laalaale ñi nga xam ne seen doon nekku ci woon kon bu bokk na ci ni koy waajale nit ñi bu ñu demee seen kër kenn ku nekk xam ne bu ëllëgee yàlla na ko taaj taajoo njabootam ne ana noo leen sàmme woon ndax yaa leen wutoon yaa leen wutoon ku neex ba ñu wut soxna te war a bañ a caaxaan su bañ a caaxaan tam waaye ku wuti soxna sabab lu ba doom am am na yan waaye ku woote na ñëw leen itam bañ ñëw ci yow am nga yan ña nga woon bañ ñëw sañ la taxaw bu ëllëgee ca kanam yàlla ne kii yàlla moo ñu wawoon dañ doon dem ñu wàññi ko leen waaye bokk na ca musiba yi nga xam ne day ñëw itam ci jàngoro yooyu tasaaroo na ba noppi am na fu ñu daganal ne góor góor buñ bëggee sëy mën nañoo sëy jigéen ak jigéen mën nañoo sëy loolu lépp yàlla ne woon déet ñu ne on on ñu ne on on waaye bi loolu amee lépp yàlla la bu ko fi yàlla andi fam ama ko si néew yàlla na fa yam ndax li ci gën a yéeme réew yi mu tàmbalee ci ruq bii wet gam yi amee ay jullit dafa gën a bari sëral yoon Libéria ak wat ci Libéria gi féete ak Guinée ak Guinée ci boppam nee gis nañ ko Mali lu tax demut Côte lu tax demut Ghana lu kéemaanam waaye suñu borom moo ci wane kéemaanam ci ne saa bu nit ñi ne yàlla ne déet ñu ne ah am na ñoo xam ne ñun ñun ñu yàlla ci ay at ci digale nekk tereem ndax ndax ndax yàlla day teg nee ñoom di leen xaar. moom la alxuraan di wax ne yàlla nee na ñi ko ñi ko ñi ñi mu àndal ñi mu àndal mooy ñi ko gëm nangul ko ne mooy yàlla kenn la ñi nga xam ne leneen lañuy wax nag yàlla nee na amut ak ñoom benn affaire te soo àndoon ak ab doxkat tey ku mën a dox ngeen di dox mu di la néeg ba yàgg soo ko bëggee sonal ci nit gi mu lay nekk maanaam ku mën a dox ku mënta dox bu ñu àndee ki mën a dox day mooy gën a sonn kii mu àndal ndax kii daal mënta dox ma di ko xaar di jéem a dox aw doxeem te bëgguñu aw doxeem su boobaa li muy def mooy dem wàcc ko fa ñi koy jàpp jàpp ko mbaadu loolu mooy bëgg a am yàlla incha allah musal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne tëj giñ tëj jigu ma ngi koy dégg ci rajo yi fan yii yëpp te bi marché sangam amatul luuma sangam amatul amatul dañuy font nit ñi dañoo war a bàyyi nit ñi ñu ñu liggéey ndax dañu daan seen doole rek seen yoon nekkul ci frontière bi ñuy tëj ñooy xaar ay jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ne ku dégg mbas ci am réew jàngoro ji wàlle ma nga dëkk sàngam dëkk bii nga xam ne dañ koy dégg ñoom bu fi kenn jógee dafa dem. waaye dëkk ba mu amee it nañ ragal yàlla ci bañ koo wàll ñi ñoom dalagul bu fa kenn jóge ba ba jàngoro ji di wér loolu yaakaar naa moom lañ moom lañ def ba tëj frontière waaye da ñoo xam dañ naan ñoom loolu day yàq seen liggéey wax yonent bi sax déggatuñ ko far nangatuñ ko nañ delloo si xel yi bu baax ànd loolu lépp nag yàlla du tëjal nit ñi bunt yépp tëj palanteer yi boole ko fay wante la tëri kenn du nooy ku rey nañ ko rey ñu ne wu droit de l'homme yàlla da cee juum ndax nit kenn waru ko rey takk takk rey moom agressé ba rey moom moom la ñuy waaye kañ rey tam tam doon liggéey aw nit yaakaar ko mu taxaw mu leen taxaw kooku moom ginnaaw rey nañ ko rek jeex na moom waaye ki ñu reyagul bu ko kenn rey ay bokkam ñàkk am réewam ñàkk réew mi ñàkk ndax képp koo xam dañ koo rey ci réew mi te reyuñ ko ci yoon réew mee ñàkk ndax ñaata nit ñoo war na juddoo ci moom dolli ba dolli Sénégal yi yëngu ci koom-koom bi gannaaw ñi ngi làkk lañ doon làkk nag di attewoo ci lañ doon attewoo di défilé boulevard général de Gaulle des na xanaa diigu ñu ci dox daal yu ci yu ama am solo yoo xam ne amutoon yàlla na ko yàlla jëme kanam mooy bu jëkkoon Dakar ak dëkk yu mag yi ko ne sëñ bi mu ne ah damaa ñaaw waaye maguma la de defe da nga koy ñaaw jigéen jooju soxna si mu ne damaa ñaaw waaye wax dëgg yàlla matuma la nday nag defe ne soxna si moom nday rek ko war a wax fekk wooteente la ci ab yar koo xam doo ko ne eh, góor gi doo ko ne eh, sa waay da naa ko sëñ bi wala nga ne ko soxna si waaye gannaaw nangu nañ léegi ministre bu jigéen nga naa ko soxna diw muy nangu ministre nga naa ko sëñ diw muy nangu ay jéego la yu ama am solo la waxuma laa taxaw nag Sénégal yépp taxaw ñiy wax wolof wala pulaar wala séeréer yàlla na ko yàlla jëm gën jëme kanam waaye ñi nga xam ne war nañ cee liggéey nañ ci liggéey bu baax lim naa fi yenn yenn xaalis bi ci la bokk xaalis bi ñun amaguñu xaalis amaguñu xaalis donte ay waxtaanee boppam luy ñëw la waaye tay bi tay bisu tay bi moo ko war a dañoo war a xam nañ bokk ñaan ñu gën a tàggoog ak noteel te am kenn rek ku ñu not muy bay di ma bëgg a jàng muy muy yàlla tabaraka wa taala suñ Sëriñ Tuuba suñ Cheikh Mati Lay ci jàngoro jooju ma a waxtaanee léegi fàttali na lu am solo loo xam ne Sëriñ Tuuba moo ko génnewoon ci ay jamono te nit ñi jaaroon nañ te ñu baree bari mucc ca yàlla na ko yàlla jaaralewaat ci waxam jooju barkeel jooju mu mel na mu daan mel muy abyaat yooyu allahu xayun samadun wa baaqi subhanahu du kanafin wa waaqi wa naxnu fi kanafihi lmania min kulli charrin wa adan sanici mustamsikina bilxiyaati ahmada xayral anam muntahan wa mubtada daal ne man qaalaha fi zamani lwabaai amanahu llahu min albalaai yàlla na ko yàlla def Sëriñ Tuubaa fi la ko fekk am na ñeneen ñu ko jëkkoon a bind waxeen ya nag wuute na waaye bi ki sëriñ bi wax sëriñ bi lu ca nekk def seytaan na la gën a diggu doomu te loola lu barkeel lay doon alxuraan rek lay dund wa ko jaalnaakum ummatan wasatan li takunu shuhadaa ala nnaas ñu ko jàng ndax bari na ñu fi jaaroon diggante ay peste ay wagaag ay kolera kilifa yi dellu fàttaliwaat ko suñu borom wes ca dox dox mu sedd waxuma la muy ak Sénégal waaye fam yamagoon na ko si néew yàlla na daal di jeex ci barke bayit yooyu sëriñ bi yeesalaat def ci leen ci def te may jullit yépp ñuy wéttilikoo suñu borom di ko wéttilikoo di ko wéttilikoo bare na yu ñuy wéttilikoo yoo xam dara du ca wéttal am na yoo xam dañuy bu ñu jënd ko dañ naan foofu daa wéet foofu daa sori ndax am na courant bañ mën a bañ mën a seetaan télé ndax am na connexion waaye fii bañ ma am internet waaye yooyu amu ci lenn lu mën a betti nit rajo ci la may wax ak yow waaye doo ko topp internet la cay nekk dañ ko cay def bu leen neexee dindi ko waaye ana luy wetti nit mooy jëf ju baax te bis bu set dañuy gën di jege bu dul dara itam dañuy gën di jege li jàngoro di jur muy dee ku nekk ci koñ bu xumb nekk ci biir dëkk bi ñu di ko ràññalee eh, ci waxi gone yi downtown ak common town bis bu fartu dikkee ba jub waa ji bu dee ci immeuble bu mag la nekkoon fukkeelu étage bis bu set dañ koy gën a wàcc mu gën a jege suuf ndax bu faatoo bañ leen a sonal ndax day tiis bu ñu ko tëral bu ñu ko indee bi ci bu mujj bi ci suuf ñu wàcce ko lal bi te moo ko moomoon moo ko jëndoon lala ko dorob bu doyadi boo xam ne su wàcc jotee wala nangam jot du wàññi dara su faatoo ñu taxañe ko ko suñ ko yóbboo ca morgue ba sànni morso boobee dugal ko fu sedd duñ ki sàmmoonte ku ragaloon ab sedd laa ku ragaloon aw tàngoor buñ koy defar mën naa am ñu ko tiim ñoo xam ne tubay jum sol képp mosuñu ko teg bët waxuma la ab absolète maam ñooñu ñoo ci am ab sañ-sañ ñoom la ñuy wooy ndax ñi ñu daan jaxasoo dëgg-dëgg dañu koy ragal ñooñu ñoo ñëw am ci moom sañ-sañ def ca lu leen neex daal di koy muur ba yaram bi daj këpp te am na ci nit ñooñ ñoo nekk fu bunt yi tëje danaa gaaw bunt yi waaye dañ koy muur ba dara ram du fay mu mural ko mbàjj mu tàng ci bëccëg bi dellu ko tëral ci aw dénk moo tax ma ne dénk yéena ci buntu armeel yi ku yebbu fasante ak ñoom kóllëre ndax jote mooy jiitu joona buñ ko fa tëralee ku ko xamutoon doo xam comme doon Cheikh Abdou Khadir ñëw na ci armeel di jullee njuko fekk ñu indi fa koo xam ne ñu ngi woon Tuubaa di wëndeelu antoon ak sagoom ñu boole leen ak ñeneen ñoo xam dañ leen Cheikh Abdou Khadir ñoom nañ xaar ba sëñ Abdou Khadir ñëwee ginnaaw tàkkusaan daan ne ana ko ci njëwa kebe ca ñee yaram yépp daw ci koo xam ne fu mu masaan jëm mbooloo koy topp dee moo nekk noonu lu waay am am personnalité ak lu ñu ko dar dar bis bu dee dikkee moo xale bu tuuti bi soo ko juddu ñoo yaam dañ fu mu jëm dañ ko fay jëm du su man dara te mas nay toll di yëkkati loxo naan maaman ñépp bu ñu ko yenn di yóbbu ñu ne man nañ koy yanu ñu ko dawul gis ndax ña ko daan gis ni ko ci ëpp dañ koy ragal dañuy ragal ku dee def na day wàlle bañ nañ ko sax bu ñu dencee ba ñëw ba ñëw dañuy teg am raxasu ci buntu kër yi bëgg nit ñi raxasu ci bala ñoo wàll ñi faatoo gut ñuy dee ñu wàqi ba mu xóot ñu teg ko ci kaw cause bi am ñu naan nañ ko dolli tuuti ñu naan xóotut ñu naan gàtt na lu tax ñu wooyu tailleur ba ko daan ñawal waaye jaax na seen contrat jeex na wéttalam jeex na diggante moom lu tax ñu wooyu ministre ba mu daan ba ko daan defaral lalam ya ak ña ko daan daaminaaw ak ña ko daan ñawal ay mbaxana ak ña ko daan defaree dal waaye ku ne mën na cee bokk ñu dugal ko ci biir ñu naan geganal leen ko geganal lu muy doon ay doon yu suuf yu baax rek yu mag bu ñu noppee sol sotti suuf ca ginnaaw ba mu taf bu wér ñu ne maa taf na ñu ne waaw ñu daal teg ay xob bis boobu lu mat a bàyyi xel am na